tey day jàkkaarloo euh, kii di euh, kii di procureur. nañ dem waaw <laughs> nañ dem moo ngi noonu. nañ dem rek ñoo ngi noonu nañ dem man waxuma si dem. Daouda <laughs> très bien alors ñu daal di àddu ci euh, daje bi nga xamante ne ni bii moom ministre de l' intérieur daal di na ko doon sàkku démb ni ki démb. Euh, muy Jean Baptiste mhm. invité ñi nga xamante ne ni mi ñooy euh, l'alliance pour la transparence des élections muy waa ATEL mhm. pour ñu ñëw rejoindre leen ci benn benn jotaayu waxtaan mhm. euh, ci li ñeel benn processus électoral bu e-, inclusive ñu ngi xamal nag yooyu les membre di waa ATEL dañoo boycotté boobulee boobulee daje waaw waaw li xew xam nga lan la dañoo jëm ci làmb waaw boo xamante ne dafa mel ni ñi war a bëri ji ci làmb ji bëgguñoo bëri. Mhm. problème bi yëpp loolu la mooy euh, ñii nga xam ne tey làmb ji xëy na xam nañu ne naruñu see génne ak victoire wala jàpp nañu ne jekkuwuñu ko parce que nag euh, élection législative yi ñu jëm c'est comme benn <laughs> devoir surprise. Mhm. am na ñoo xam ne peut-être préparer ko ak dem ci day xaw metti léegi euh, li xew mooy. <laughs> pardon moom hmm? élection yi comme devoir surprise. comme euh, de. devoir surprise leen dul ak ay metti non pare wuñu. Eh, yàlla nag bu ñëw rek yàlla bu. professeur bi yàlla bu professeur bi ñëw rek ne ranger les bagages jël bagages yëpp teg fee. teg fële rek ne dafa loolu la mais lool la loolu la président Diomaye def def def def opposition léegi nag léegi nag yàlla bu professeur bi jël meilleur élève rek teg ko si kanam. ni laar yëpp nekk ci ginnaaw. oui Diomaye jël Sonko rek tegee ko fee nag ne waa Benno nekk leen fii toog leen. léegi non mais c'est jaar le problème doo génn maam voilà nga baal ma continuer <laughs> donc <laughs> problème bi loolu la problème bi coow lu coow li yi ngay dégg yëpp mm. mais yow fan nga mës a gis contexte bi ñu nekk actuellement déjà il faut souligner dafa am des faits yu am mm. ci ci élection yii nii te moo mm. waroon tax mais ñëpp sawar maanaam ñu dem ci élection boo xam ne élection non stress <laughs> euh. c'est-à-dire amul doo toog ba ñu ba ñu ne la. Mhm. génne nañu liste titulaire waa benn Bokk Yaakaar. wala génne nañu liste titulaire waa APR wala euh, coalition xalifa Amadou Ba. ak mhm. euh, ak ak ak waa PS yi. donc ñoom ñu ngi fii maanaam c'est une élection boo xam ne nii li daan wax ci ci ci ay ci ay euh, élection yoo xam ne nii dañuy bàyyi ku ci nekk nga mën a bokk. mais aujourd'hui yàpp on n'a pas ce problème. Mhm. su doon dem ak barki dem ñu ngi naan parrainage bi kale nañu diw diw du bokk diw nangam nangam. élection bi exclusivement ñëw ñu ne la parrainage amul sëñ bi kay bokk. Mhm. maanaam pourquoi maanaam même quand on nous parle pour la transparence des élections man je me dis fii ana problème ban problème mu transparence moo fi posé ba ñu war a mën a ñu wax ay waxu transparence ci mhm. élection yi. Mhm. qu' est qui se passe li xew lenn la mooy di dissoudre nañ assemblée nationale. ñu war a dem ver des élections législatives. Mhm. législatives yoo xamante ne nii sëñ bi ñi jiite réew mi ñi maanaam seen défi mooy. Mhm. ñun naka ñoom naka la ñuy def tey ba du ma wax sax il y a douze ans waaye depuis indépendance ak léegi naka la ñuy def ba organiser des élections yi gën a leer ci élections yi mës a am. Mhm. élection boo xam ne nii duñ ne yow diw doo bokk duñ ne diw yow dañ laa génn ci liste électorale yi. duñ ne diw dañuy supprimer sa liste titulaire. duñ ne la tere ne la amoo def campagne ci mbedd mi yeneen ak yeneen. mais tey li ñu li li ndamu président Bassirou Diomaye Faye muy mu def élection yoo xam ne nii pour la première fois. kaay leen bokk tranquillement mhm. ñu dem ci ay élection ñu war a retirer seen ay carte dem retirer ko. Mhm. ñu dem ci élection ku gagné ñu xam ne yaa gagné. mais opportunité boobu la am actuellement. Mhm. mais sëñ bi yoon bi dafa leer nañ amul dara lu lay faqastal. mais lan moo tax ñenn ñi bëgg forcément imposer que wëy yi dafa am problème yu am. président de la république ci conseil des ministres bi weesu. dans le but de maanaam indi benn euh, climat waxtaan ak nit ñi. pour que ñu mën retrouver wu ba jaxasoo bañ ñu am ci élection yi. Mhm. mu jox ndigal le ministre de l'intérieur dama ko ko dama bëgg nga dajaloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, parti politique yépp yi mhm. bëgg a bokk ci élection législative yi. Mhm. su ko defee ensemble ngeen waxtaanandoo ci naka la ñu war a tëralee élection bi. waaw sëñ bi bu dee yow da ngaa bëgg a bokk rek dem élection moo la tax a jóg. <laughs> sëñ bi ñëwal si jotaay boobu nga toog. Mm-hmm. te maanaam yow loo fay waxtaan sax ay formalité la mais ñun gëm nañ ne. Mm-hmm. élection yi amut lu ñuy faqastal nit wala lu salte lu ci am ak wala yeneen ak yeneen. léegi situation boobu tey euh, le ministre woote jotaay bi woo ñëpp ngir ñu teew foofu ngir ñu waxtaan ci conditions yi ñu war a demee ci élection euh, législative yi donc suñu àggee foofu Euh, le le nga gis ni waa ATEL. Hmm. alliance pour la transparence des des élections législatives. ñu ne dafa am ñenn ñu budde budde pourquoi nañu génn wax sénégalais lan moo tax ñu budde xam nga man li ma bëgg sénégalais yi comprendre mooy li ma doon wax léegi ci devoir surprise. Mm-hmm. gars yi xam nañ ne élections yi arrangé wu leen mais ils veulent coûte que coûte créer des circonstances yoo xam ne c'est pour wan nit yi wala loo nit ñi ne dafa am. Euh, par parloo gu am ci élection yi wala jaay doole gu am ci élection yi. Mhm. élection bu daan am élection bi fi mujjee am lan lañ doon wax Antoine Diome mënul organiser élection yi parce que dafa wane farak ba mu fës. Mhm. mais loolu te c'est pas la première fois Aly Ngouille Ndiaye organiser organiser na fi dama koy def. waaw Aly Ngouille Ndiaye l'avait je pense que ce régime là ñuy teg seen seen ay ministres ci moment boobu la ñu régler problème yu bari mooy au moment où ñu war a choisir le ministre de l'intérieur nga dem fekk benn général toog fële. Mhm. c'est pas politique. bokkul Pastef bokkul ci coalition deful politique. bëggul nekk maire bëggul nekk député. kooku c'est c'est c'est quelqu'un bu servir Sénégal pendant des années. ci genre gendarmerie bi. Mhm. ba ñëpp xam nañ circonstances yi ñu ko fi jëlee. waaw kooku nga dem jëli ji ko ne ko kaay ma def la ministre de l'intérieur. sëñ bi transparence mun tawee su loolu. donc élection yi dama gëm ne. moo nar a nekk élection en tout cas au Sénégal. yi nar a gën a leer et puis li nga daan gis man dañ maa baare bokkuma ay ñii dañ ñoo leeseeg dañ ñoo amul. kaay leen bokk lu ñëw ñëpp ñëw bokk ñi war a bokk ñi warut a bokk ñëw leen ku ci nekk xam lan ngay peser. lii di conseil constitutionnel dem na ba dàq li nga xam ne mooy mbirum parrainage. aussi waaw léegi nag lii neexul. lii lii lii ku bëgg a gañe rek. mbaa ku bëgg a bokk mën ngaa bokk. ku bëgg a gañe mbaa bokk lii war naa mën a causer problème. non waaw am ñoo xam ne dañoo taxaw ne par force ñoom non faa problème am affaire yi jaxasoo mais ñoom daal élection yi ni mu nar yombee nii rek ñëw bokk dem nii ça les arrange pas. Mm-hmm, mm-hmm. parce que peut-être xalaat nañ ne dinañ am difficulté pour pour pour gagner élection yi wala jàpp nañ ne euh, camp bi nekk au pouvoir xëy na nekk na si position boo xam ne nii bu demee ci élection daf leen di gagner. Mm-hmm. waaw mais woote nañ waxtaan nga ñëw nga ne da ngay budde pour quelle raison. dëggal li ministre bi wax. mu ne mhm. ces gens là ils sont pas prêts pour dem seen élection. Mhm. kay leen ñu waxtaan nan la ñuy tënkee élection yi ci koo xam ne leer na ma ne boo taxawoon ne ko lii damaa bëgg ñu doxalee ko nii wala ngeen déggoo ne ko ñun dañoo bëgg lii nga defee ko nii mu nangu defee ko noonu. Mhm. yow nga préféré wax moom neex la nga jékki-jékki nga ne da ngaa buude da ngaa gedd réunion bi pour lan boo leen woon fii léegi ne leen yéen lu tax ngeen ngeen buudee réunion boobu. amul lu dëgëral li mën a teg sa donc faut qu'on soit soit da ngay affronter nga dem seen élection ku si am zéro virgule ak ku si am plus fort reste ku amul dara nga xam ne loolu mooy sa cër. Mhm. mais c'est pas que man benn Momo xam naa ne saa waay li ma topp si ay nit matuñu saa ma bëgg ne voilà profité pour indi coow sono xam nga li problème bi. Mhm. gis nga gis nga ces gens gis nga si euh, terrain politique bi. dafa am des hommes politiques yoo xamante ne nii yàlla dafa def ay tonneaux vides lañu maanaam seen coow day bëri lool. seeni photo dafay bëri loolu lu muy génn si une yi mhm. dañuy bëri loolu ñuy coow seen coow lu ñuy wax ay toj toj day bëri saa bu xëyee di leen ngawte ngawtee mhm. mais bu fekkee da dellu si dooley urne man maa leen pour man loolu problème bi te ñoom ils ont intérêt à ce à chaque fois mhm. ñuy nëbb sénégalais yi que ñoom lii la représenté en politique parce que xëy na coow li bu bëree rek koo dégg turam di jàpp ne am na lu mu représenté ci wàllu politique wax léegi occasion boobu pourquoi ñu bëgguñu ko xaj yu yi weesu yëpp am na ñoo xam ne dañuy génn wax dañuy dañuy nangam lii réew mi lii réew mi lii réew mi lii bu élection jotee ñi nit ñi war a bokk ñoom duñ bokk dañuy dem toog tranquillement mm-hmm. ba élection yi passé ñu génnaat commencé wax dafa mel ni ñooñu dañu bëgg a nëbb le fait que ñoom mënuñoo am mille personnes yu mat ci ci ay élection ci ay élection législative mm-hmm. donc pour moi loolu lañ nekk dañu nëbb nii mooy ñoom bëgguñu dem si élection pour man loolu dafa war a dakk boo nekkee en politique kay xanaa da war a yaa ñu ne la kaay bokk si élection ba nga dem wane sa bopp. Mhm. soo amee tey benn résultat bi bu subaa nga xool noo ko yokkee ba mën a atteindre beneen niveau. parce que da ngay évoluer en politique. Mhm. li leer li li leer ba leer mooy. y' a pas de problème ci processus électoral bii. gars yi nañ takk seen ay ndigg ñu dem campagne yi ku si nekk dem convaincre ñi nga mën a convaincre. bu fekkee ne da ngay perte nga perte dans la dignité. Mhm. mais c' pas parce que man leer na ma ne élection yi aw ma ci chance pour gagner je vais essayer de tout faire pour jaxase carte gi wala yu demee noonu. man loolu jàpp naa ne euh, ay tappale dong la na gars yi dem ci élection bi ku si nekk dem campagne. Mhm. loo am ñu xam ne loolu nga mérité et foofu nga tollu askanu Sénégal. d' accord très bien Momo alors Daouda. Euh, sa jàngat ci euh, alliance pour la transparence des élections ñi nga xamante ni démb le ministre Jean Baptiste Tine daal dina leen woo pour ñu def euh, ab daje daal di waxtaan pour xool nu ñuy gën a yaatalee boobu lee mbir